se permet nous <laughs> naan procureur nous ngi mhm. porter plainte parce que nous na plainte en euh, euh, euh, engagé une procédure à enquête mhm. ARCOP mi rejeté mhm. contrat bi nga xam contrat au azerbi mais nous, nga a yow en tant que premier ministre des décrédibiliser la justice c'est un danger pour moi mais magistrat m'a ñu war foule à ak xam nga naxaate kenn mënu ci dëkk mën nga nax nit ñi benn jour. Mhm. baax na nga nax ñëpp deux jours baax na mais naxandooruñ tout le temps ñëpp c'est impossible et mhm. Sonko il faut qu'il s'en rende compte aujourd'hui les Sénégalais sont prêts mhm. à lui faire face surtout par rapport ak li muy wax. que est-ce que yaakaar nga ne euh, moom xalaat na loolu est-ce que moom dina jël temps réfléchir def bilan def euh, recul ba xool ndax fi mu nekkoon mi ngi fa on a comme l'impression dafa jàpp ne ba léegi doole gi mu amoon moom la am ba la dernière fois on a vu que le président est sorti pour sonner le hola, le glas de la récréation yow ndax noonu nga wala jàngee woo ko. man man président moom dañoo complot. ah bon Wow. ci naka. le président Ousmane Sonko en tant que président d'un parti politique. Mm-hmm. bu am ay fédéyin ño xamné ay talibé lañu. moom sëriñ le bu doon wax ak ay talibé mm-hmm. woy way jii dañ ko far a dañ ko far a c'est pas normal mm-hmm. Samba Ndiaye waru fi toog d'ailleurs sax xam naa ne nax président. waaw président ñëw wax ak nit ñi. ñi nga xam ne duñ ay talibam hmm. wax wax ju rafet. Euh, defar naan way e, état lañ nekk. Hmm. nangam nangam. Hmm. d'ailleurs laaj leen ko moom moom naka lay def ba ñu modifier décret boobu. est-ce que boobu léegi gis nga ñu modifier décret. te du barki après bi mu ci jógee lu ko def. commencer di organiser la transhumance. di recevoir les autres personnes. kon qu'est-ce qu'il a fait il, a, il est parvenu d'abord à j'étais ben os à ses affidés mooy maanaam ñi nga xamné dañ ko top rek mhm. les yeux fermés ba mujj nax leen ci ne mhm. d'ailleurs il est normal que ñi ñuy jël ñu jël mhm. leen parce que ñun ñoo waxoon ne ku sa loxo set mais ñi ñu jël bo leen setlo mais ñu ñu doon ngañ ñi nan bu ñu leen bu ñu bu ñu ñoo sàcc alalu réew ay ay ñoom ay yow ñi ki yor l'ONAS luñ ko luñ ko waxul fi tout au début par rapport à immeuble bi ñu doon tabax ak yu demee noonu. waxuñu ne moo doon financier wu non l'ONAS. oui Balde. waaw Balde Dura. Dura Balde waaw nga dëgg. bi mu fi jëlooy te surtout dañ njëkk a mooy dafa am foofu benn contrat benn immeuble bu ñu doon tabax nangam nangam defuñ ko normal. deuxièmement euh, ñu ne euh, maanaam c'est même Dura c'est lui moo nañ moo doon finance ñu nañ Amadou Ba. dëgg la. Mais ça peut se comprendre que Doura soit avec euh, Ousmane Sonko. Pourquoi Mais Doura, moi, AB partenaire. Madame. AB partenaire, moi, signé avec Mercalix pour gérer le dossier des 94 milliards de membres Diallo. Ils ont tout Mercalix, qui n'est que Mercalix, mom, Sonko, nous, mom, Atlas. Hmm. Bah, Après, Balde n'est que adjoint trésorier ou pastef. Wow. Quand tu as une situation, de mais bonnes xam naa kii dafa jàpp kii ci tànk kee jàpp ko ci loxo ñu ne kon kon ñooñu ànd rek mën a wóor. loolu moo tax dura. nee nañu aussi il a fait euh, le sale boulot pour livrer peut-être euh, Lat leen ko defal ko genre bilan boo xamante ni gis nañu fi ñu mujj yóbbu Lat waaw aussi loolu loolu. moo mooy la mu wax rek. ñoo bokkoon mbuus <laughs> démb ñoo bokk mbuus. démb. Mhm. bi ñuy toppatoo douze milliards ou quatorze quatorze milliards yooyu ñoo ko signé di wax tey ne.

merci comme donc dafa mhm. ministre de l'énergie bi aussi mine bi tam la Sophie bi nga Samuel le scandale mu ngi ci biir mais non bu mon foofu sax peut-être ne rek dafa ministre rek mais y'a ngi dégg affaire Azer bi ni nañu amna benn ministre ci gouvernement bi génné te secteur ci niñ waxé mom mo wax gaañi buñ dugg négocier ak espagnol yi. ba ci génn mu jël jox est-ce que du mom lañuy wax. Ah, voilà affaire bi. mané ne xamné dara wax Sall c'est sama ah. il ne waxul sax affaire président. fu fu Macky Sall musa depuis Macky Sall politique ak Macky Sall yobbu primature Conseil, ministre doo daal jaaxle lu chaque fois ñu euh, Sophie. Sophie jaaxal na ñëpp. xaritoo. wallaahi xoolal tey. tey ñu jëli ko indi ko mu toog. non mu nangu trahir nitam. mais c'est que xam naa dafa am lu muy lu muy. <laughs> ragal aussi boo demee donc yooyu. Euh, Sénégal yi war ci ubi sen xel. Mhm. ni ñu bañee woon démb Macky Sall. Mhm. naan dafay réduire l'opposition à sa plus simple expression. Mhm. Kaffrine la ko xewoon. dëgg la soo gisee sama digënté ak nakari ci yi ben. Wa. waaw dafa ñëw ba sama dëkk wax lu mel noonu. xam nga loolu bu ko waxee. Uh-huh. lan lan la nit ñi xalaat ah kon Babacar Gueye. Babacar dafa war a ñëw waaw pendant dix ans on s'est opposé. waaw bi ma gisee ne moom ci boppam yaakaar na ne am na lu ma ko war a mën a apporter. Mm-hmm. wool ma boppam waxal ma boppam. ma koy jàppale ci loolee à une condition. je ne prends aucun poste. te kenn du xam ne sax maa ngi lay jàppale ci parce que du lu ñuy fësal. Mm-hmm. waaye li ma lay waxal ci suuf. Mm-hmm. loolu suma diggante ak yow loolu mën naa ko def.

bàyyi ki la gagné géré. Mhm. nga commencer à critiquer nak mhm. pas app bi. Mhm. app bi cinq ans là, wala app bi mën nek élection intermédiaire élection locale wala élection législative. nga dem wutiwaat. ba bay yalla la jox wala ba sénégalais dila wul wat xamné waat xam peut-être tu as changé wala au moins am nga beneen offre bu bees. ñu bay la nga mosaat. ñooñu nekkoon foofu xam ne li ñu sanctionner mënul nek ñu sanctionner leen. dem ci opposition bi. loolu démocratie. mais est-ce que kon le djub jubal